muy Tawfekh ju kenn xamul fu mu li ëpp ci nit ñi day naan ay daanukat rekk lañu ñu ngay dem ca sëriñ ba. sunu yàlla mayee nga nekk fi tey di takk ndeeram yor caabi buntu këram war na noo ñëw ba nga xam ni bokkunu ca ña doon di diital danoo ñëw jaayante si ñëw ba nga gis ni xam ne joxe na sunu bopp joxe sunu bopp gi ñu dëggal ko ci sunu alal ak sunu jëm loolu moo nu indi nga xam ne ay murit lañu yaakaar seexul xaddim ku ñu ne moo ko fi nekkal rek xamal ne yaa yor sunu buum yow na buum gi sunu baat jox nañ la ko. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem.